ñoom tamit di wax ne li tax ñu woo leen fii day lu ama am solo ndax dañu taxawal benn plateforme bu tudd ensemble avec Amadou 2024 loolu nag dañ ciy sant bu baax son excellence président de la république Macky Sall ndax lan ku ne xam na ne tànn bi jafe woon na lool ndax ku xam coalition bu mag bii di Benno Bokk Yaakaar xam ne bëri na ay mbër bëri na ñoo xam ne tey jii ku leen joxoon réew ñu jiite ko loolu moo waraloon tànn bi jafe loolu moo waraloon tànn bi jafe waaye ndox ba ñu tànnalee kii nga xam ne mooy Amadou Ba coalition la boo xam ne tey jii bu daganoon ñu ne fukki président ñoo jiite réew mi wala ñaar fukk defe naa ne mën na cee jóge ndax ay cadre ay borom xam-xam a ngi ci yoo xam ne ku leen joxoon réew mi ñu jiite moo taxoon tànn bi jafe kon damay waxaat rek ne gàccee nga la ma son excellence président république ba mu ñu tànnalee Amadou Ba Amadou Ba mi nga xam ne ku ne xam ne ne ci carrière am bi mu nekk impôt liggéey na fa liggéey bu mucc ayib waaye ku am yar la bu mu duggee ci gouvernement aussi liggéey na fi liggéey bu mucc ayib ba ci primature gi nga xam ne moom la mujj ba yàlla dogal ñu tànn ko mu war a jiite ci 2024. nit la koo xam ne aussi ku jaxasoo këru diine yi la te réew mi dafa laaj lool réew mi dafa laaj ñu booloowaat ànd doon benn réew la moo xam ne influence yi bari na caaxaan yi bari na kon laaj na koo xam ne dafay ànd ak yar waaye dafa am dafay am xam-xam boo xam ne ëllëg muy 2024 bu ñu ko joxee réew mu yor te am nañ yaakaar ne Amadou Ba mi nga xam ne président de la République tànn na ko gëm nañ ne bu ko yoxee réew mi dana ko yor looloo tax ñu taxawal plateforme bii tey tudde ko ensemble avec Amadou 2024 muy lu am am solo loo xam ne nii ay parti ko composé bokk na ci Teranga Sénégal moo woote ndaje mi nii tey waaye association ngi ci GIE mi ngi ci lépp lu ngeen xalaat rek ay mbootaay lépp ngi ci ci ñoo xam ne am nañ yéene ngir euh, février 2025 incha allah Amadou gagné di leen wax ne Amadou li tax président tànn ko parce que ku xam Benno Bokk Yaakaar xam ne ba mu dalee gouverner depuis 2012 macha allah la ñuy wax tey nit la koo xam ne lii di plan Sénégal émergent ku ne xam na ne Amadou Ba ku ko maîtriser la te plan Sénégal émergent googu du ñu nangu kenn di ko salfaañi wala kenn di ko yàq kon président bu amee choix ci Amadou Ba tànn ko gëm nañ ne mën naa motti lool lii nag. bokk na ci dañuy doog a tàmbali rek bi ñuy tàmbali sax lii ci ñaari fan lañ ko woote mu mel nii nawet bee tax mënuñu ko def ci bit di woon nit ñi parce que mënoon nañu tàmbali ba pare muy taw moo tax ñu def ko ci salle bi waaye xam nañ ne mbooloo ñu am xëyu ci ab salle bu yàlla dogalee lii ñu ñu weesu ko gëm nañ ne war nañu dugg ci Sénégal fépp région nekk ci Sénégal war nañ fa dem waaye fépp commune nekk war nañ fa dem ngir lan taxawal fa lii di ensemble avec Amadou pour 2020 pour 2025 Inch'Allah. 2024 inchallah allah loolu nag dañ ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn muy président association GIE mbootaay dawalkatu sareet chauffeur bi médecin bi képp koo xam ne menuisier bi maçon bi jàpp nañ ne kenn ku ne am nga ci bu ñu ak Amadou Ba bokk na ci ngir ëllëg mi am stabilité parce que ku ne xam Amadou kat réew mi kenn mësu koo xam ci ay caaxaan ci yar lañ ko xam ci liggéey lañ ko xam waaye ci jàmm rek lañ ko xam te président jàpp naa ne li tax mu bàyyi de euh, ne demul ci élection yi ñu jëm bokk na ci fonk kàddoom waaye li tax mu bàyyi mooy xam na ne Amadou Ba incha allah mën naa jiite ji réew mi ëllëg kon su ko defee dañ leen di sant bu baax ci wuy si gi ñu leen di wax ne gàcce nga ma président de la république waaye di wax ne gàcce nga pat teranga sénégal waaye di wax ne gàccee mam mbolo mi fi tew kon ñi ngi leen di sat bu baax di leen gërëm bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatullah yo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi serigne muntaha Mbàkke di ko mu gën te yag lool gën a ñu yag ci ginnaawam and ak moom liggéey bi di ñaanal xalif general des Baye Fall Serigne Amdi Modou Mbenda Fall mu gëntee yàgg gën a wér may ziar ñëpp nag di nuyu suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ bokkal jataay bi su limee damay juum waaye su tuddee président Modou Gueye rek mel na ni tudd naa ñëpp kon ñi ngi jaajëfal suñu góor ñi nga xam ne ñoom lañ àndal liggéey waaye nag balaa may avancé dama bëgg jigéen ñi ngeen tàccu seen bopp seen bopp saal bi mu feesee nii yàlla ak la kon maa ngi remercier ñëpp di wax ni dooley jën ndox ñun buñ taxawee fii di wax yéene ñu ko may ndax suñuy kilifa rek ñoo nekk suñu ginnaaw gën ñoo xam fopp liggéey bi gën ñu koo bëgg gën ñoo xam nun koy defee waaye xañ na liñ naan day doon ay sas yoo xam ne yàlla moo koy teg waaye yàlla xam na ne waajaluma sax discours léegi rek laa dégg ñu ne Ndeye Maty te bëgguma gàntal waaye nag ñuy sant bu baax di wax ni jataay bi li ko waral mooy dañoo am lu ñu dëgmal li ñu dëgmal ñu xam ni am nañ ci part de responsabilité bu rëy mooy tànn ñi nga xam ni ñooy décider luy doxal dëkk bi ñun nag dañoo yàgg doon kaas ñun waa Mbacké département de Mbacké commune de Touba ak commune yi mu àndal yëpp di wax ni nañu jox gëdd Touba ak doomi Touba ak département de Mbacké ñu tànnoon suñu doom joo xam ni daf dañoo xam-xamam da koo mate sëkk xereñam mate ko sëkk ñu doyloo ko wóolu ko nekkal ko ci suuf mu nekkal ñu ca kaw nekk ba mu nekk ci kaw nag ñun suñu yoon nekku sax moom moo ñu gën a xam la fa xew ak nan la ko war a décider ñun ñu nekk ci suuf nag ñu am liggéey bu rëy boo xam ni moom lañ war a def mooy dëggal suñu instance de décision yooyu ba suñuy doom nekk fa niñ koy defee nag mooy ñun ñu takku liggéey fii ci base bi loolu moo tax ñu woo ñëpp pour wan leen fan lañ war a jëm ak lan lañ war a dëgmal mooy choix parti Sénégal mooy le président Amadou Ba ñu xamee ko noonu loolu mooy choix parti Sénégal jigéen ñëpp yóbbaale ko bu ñu kenn intimider nag ci ay boppu fas ak leneen ñun muy opposition muy pouvoir ku yor suñu njariñ la ñuy xool mooy ki nga xam ni daa xam li waa Touba yelloo ñu wax ko ba mu dugg ci noppam mu fas yéenoo taxawu ci wàllu woowu ñun kooku la ñuy léegi nag bu ñu am complexe fenn naan ay Macky ay Amadou Ba nous avons fait bon choix mooy ànd ak président Amadou Ba fas yéene ànd ak moom fal mu satisfaire ñu suñuy doléance képp kuy dem. na nga loolu léegi nag liñ naan ku may ndekki bu la añ war nga koo gëm financement yi nga xam ne dugg na ci bi sant ñu doom moo ñu ko may bu ko sant woon kon du ñu am loolu léegi nag yeneen a ngi ci ginnaaw bi ñëw nanga góorgóorlu ah, xam fi ñu xam li ñu bëgg xam li ñu war

Je m'en vais vous lire le communiqué de presse de la plateforme Ensemble Amadou 2024 fait en le 19 septembre 2023. Mesdames et messieurs, chers camarades du parti Teranga Sénégal, chers membres de la plateforme Ensemble avec Amadouba 2024, chers invités, chers journalistes, nous vous remercions tous d'avoir répondu à notre appel pour ce point de presse afin de vous donner la position si tant attendue de notre plateforme Ensemble avec Amadou 2024 suite au choix de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, porté sur le candidat de la coalition Benno Bokuyaka, le président Amadouba. Chers invités, il était presque impossible pour une coalition comme la nôtre de choisir un candidat parmi tant d'autres pour les prochaines élections présidentielles de février 2024, car Benno Bok est une coalition pétrie d'experts, d'hommes d'État, d'hommes de valeur. C'est pourquoi nous félicitons avant tout le président de la République pour son choix porté sur le président Amadouba comme son successeur. Le président Amadouba est un homme d'État reconnu par son expertise sa capacité à réaliser des programmes socio-économiques allant dans le sens à réduire la souffrance des populations sénégalaises. Sa connaissance en profondeur des dossiers de l'État et sa maîtrise du plan Sénégal émergent. Population de Touba, le président Amadouba, par la confiance qu'il inspire aux partenaires locaux comme étrangers, privé comme public, tissent un réseau très dense avec les grands bailleurs du monde entier et il est d'une parfaite amitié avec nos chefs religieux depuis plus de 30 ans. Amadouba est le candidat de la réconciliation des Sénégalais. Il est aussi le candidat du progrès et de l'émergence. Chers camarades, la plateforme Ensemble avec Amadou 2024 est une structure composée de militants du Parti Teranga Sénégal, de militants de l'Alliance pour la République, de personnalités politiques influentes des différents partis et mouvements de la mouvance présidentielle. Nous invitons toutes les populations du département de Maké, de Touba à Taïf, de Njuman à Sadio, de Ngaï à Misira, jeunes, vieux, hommes et femmes, GIE, ASC, e, chefs religieux, disciples, ouvriers, salariés, commerçants, industriels, entrepreneurs, chauffeurs et charretiers à venir soutenir le candidat Amadouba. Nous n'aménagerons aucun effort, aucune ressource. Nous aurons toutes les régions du Sénégal, tous ces départements, toutes ces communes, jusqu'à ce que soit déclaré vainqueur le président Amadouba au premier tour au soir du 25 février 2024. Avec une victoire écrasante et historique dans le département de et plus particulièrement dans la ville sainte de Touba. Vive le président Amadouba, Vive la coalition Benno Bokk Yakaar vive